leen centre de santé bi lii district sanitaire de Mbacké la ambulance yi li tax ñuy gaaw a sonn Mbacké dafa am benn centre de santé ak 22 postes de santé yoo xam ni fii la dépendre ci suñu kilifteef donc muy Taïf Sadio Gerle fii ba Mbul Kayen ngay euh, Sadio ngay Missira ak poste commune bi yëpp ci district bi la ñu bokk kenn amul droit ci poste yooyu jël sa malade yóbbu ko feneen fu dul fii ci centre de santé de référence bi bu ñëwee fii nag ñun ñoo koy jël ci ambulance bi nekk fii soo ko transporté kon ambulance yooyu foog ñuy gaaw a sonn na ko nit ñi comprendre noonu mais dëkk bi ñun ñoo ko bokk kon ku nekk da nga ci war a jël nga jàpp ci mais waroo toog rek ndax téléphone léegi boo defee 1000 francs am ligne dégg nga connecté wu lu la neex nga wax ko mais nañu bàyyi ba ba ñuy fay wax di bàyyi jëf bu boobaa man nañ ma ko wax kon nañu àndandoo liggéey te yàlla rek tax amul benn poste de santé ci district bi boo xam ni amul sage-femme waaw kooku dama koy wax parce que nit booy wax bu bés ñëwee da ngay wax amul benn poste boo xam ne amul sage-femme dama leen di laaj askan bi yéen ñi dëkk Mbàkke est-ce que gis ngeen maternité bés bu nekk jigéen bi fa euh, euh, euh, wasin faatu fii bu amee nañ ma ko wax des comité CDS bi am na ci loo xam ni ñoom médecin yi ñoom ñoo leen di fay pour ñi naan médecin amu fi ñaari médecin ñu ngi consulter ma waxaan leen ni di leen leeralal ni ne médecin chef kenn tegu ko muy consulter ma waxaat ko bu baax a baax na ko ñëpp dégg na ko ñëpp dégg médecin chef Gallo mi nekkoon na directeur des ressources humaines médecin chef kenn tegatu ko pour muy consulter dafa am médecin yoo xam ñoom ñooy médecin centre de santé ñooy consulter am na ñaari médecin yoo xam ni ñu ngi dëkk fii ci biir vingt 24 heures sur 24 soo dikkee di nga am médecin échographie yi ñuy wax li ma wax ak Amadou Mbeng duma ci ñëwaat ñaari échographie yi bees tàq ngi nelaw ci centre de santé bi kii ñëw di def ci écho radiologue la du koo xam ni dafa taaba taaba de radiologue boo xam ni mooy ñëw di ñu defal des rajo de qualité l'homme de laa rue nag l'homme de laa rue ndax xam ngeen ko ki nga xam ni rek dafa yor saagam wala bigam wala téléphone am di wër lu nekk moo ko gën a xam loolu mooy l'homme de la rue mooy li muy wax xamu ci dara day wax rek man nag li ma wax mécanicien nit laa nit anam bu mu toll buñ ko indee dinaa ci jéem mais am na médecin yuy consulter fii kon nag ma waxaat leen ko leeralaat leen ko Mbàkke bu amee fukki hôpitaux dina am centre de santé ndax centre de santé bi mooy def activité préventive mooy def ñàkk yi mooy def sensibilisation ak sociale yooyu mooy seen vocation kon jàpp leen loolu ni fii centre de santé bi du mos ñàkk ci district bi boo demee Touba am na centre de santé am na ñetti hôpitaux mais est-ce que xam ngeen ni euh, hôpitaux yi li ñu liggéey weer wu nekk li may wax ci euh, kii laa ko waxee li ñuy liggéey hôpital bu ñu paree dañuy verser données yi ca centre de santé ca district ba district bi moo koy dugal ci plateforme bi tax ministre bi fa mu toog ci lalam ñiy wax ni yëpp xamuñu mais ministre de la santé bu toogee ci lalam connecté wu da lay wax Mbàkke ñaata nit a fi hospitalisé comme ni ko président waxee loolu lañ naan DHIS d daf ko def à l'échelle national fu ñu toll man mi fu ma toll bu ma nekkee Fongolemi dinaa xam district bi li ñu liggéey lan la kon noonu lañ ko organiser ñii ñooy saisir données yi man tey bu ma ko bëggoon a tripoter changer ko duma ko mën ndax noonu lañ ko defee kon nag nañ leen rafet njort nañu leen positif damay wax de tey bésu wax la waaw na am ñoo xam ni nañu féete ratatati rek ratatati ratatati rek di ratatati nay àndandoo joxante loxo kenn yàlla du rey kenn du reyal kenn noonam du reyal kenn noonam kon nañ leen góorgóorluwaat àndaat boole xol yi Mbàkke li ma koy waxee bés bu nekk Mbàkke 1932 la hôpital bi nekkoon nit ñi di xeex ak di xuloo di xeexante ba ñu romb ko fi ku ñëw romb Mbàkke dem mais am na ñoo xam ni tey comprendre nañu défi à relever donc Gallo il a compris les défis à relever